jox kàddu gi sëñ Moustapha lu ko defee mu tënkal ñu jotaay bi ñaanal ñu bisimilah.
asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw kay ah Babacar Ngom def nga yow si seen kii bi nag moom la la la la la la sëñ Mansour si rahimahullah daa wax naan yi fi alaat daw me ne waaye dëgg yàlla dëgg yàlla yàlla kii na lool waaw am na solo am na solo li li li li moom buntu la kon bu yees moom yaakaar naa nag nag su su ngeen dajale woon li ngeen fi wax lépp nag bind ko ëpp téere waaw wax naa ko sëñ Xarim Ndiaye bind ko nag maanaam daal yaakaar naa dana dana ci ci baax dana dimbali dana jegeel nit ñi nit ñi nag maanaam xidma Modou Modou it soo soo ba ana Modou day bind moom de ah de li nga doon wax da ci dugg de waaw waaw waaw waaw déggin bi maa déggin ñu ñu mu déggee day day dugg waaw nga xamante ne daal kenn ku nekk kenn ku nekk dimension bi bi nga doon xool yëf yi dugg ci dérë bi su su su ko defee français ak arabe dana baax lool ci arabe bi sax daanaka moom mu móol ba mën naa bañ a bari lool waaw donte nag gone yaa ngi jàng léegi waaw tuwaa moom tuwaa tuwaa moom gone yaa ngi jàng arab beeg yooyu ñi ngi ko soxla daal ñi ngi soxla xam-xam waaw waaw nga xam ne am na xale bu bu ne Maroc mi mi may wax naan ma alxamda bi di ba tey agsi gu fa duñ ko war amuñu ko nangam waaw naa ma buñ ko mulaatoon ko mel ne sor Bamba Dramé bu ñu jokkoo moom danañ fexe ba am agsi fa waaw léegi Modou li li li li Modou mi mujj mujj di wax laay kii rek man fa laay fa laay waxe maanaa maanaa xaw ma noonu Sénégal dañ dul neex a waxal maanaa booy wax xam nga fu ñu toll mënoo ne lii daa xonq da nga naan da nga naan waaw kii bee wante bi moom bi moom daa xonq wala wala wala daa weex ñu ne daa weex nga ne ah waaw léeg-léeg kon ñu war cee digg ne kon moom daa soxla lu lu xonq ah moo ne kii bi dafa xonq de ah kon kon daa xonq maanaam nit ñi soo waxee dut baaraam duñ ko xam boo junjee duñ ko xam ma de xam kon kon kon kon fooy jaar kon man la kon fooy jaar maanaam nooy waxee bañ digg communication bi moom mënut a jàll xam naa kon yéen yéen. yéen moom màggat seen seen Babacar Ngom ak ak ak ak ak ak kanati Assane Ndour sax ñi ngi yaa xam-xam bi daal yéen daal yéen yor xam-xam bi yéen yéen daal yéen nag yéen a war jàllale kii daa wax lu am solo moo duñ tollu waaye léegi man buñ ma woon ab waxtaan yéen ngeen jël ko wala man damay waxta wax rek wax wax wax wax ma man li ma soxlaa wax mu daa mel ne àgg na fu ñu toll alhamda li li sama xalaat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mi ngi ci loolu nga wax ca kii Assane Ndour doon ko doon ko laaj ci maanaam léegi foofu yi nii de bind naa ca mbind mu xoromu la bind naa ci mbind mu xoromu noppeegul nag yàgg na ay ay at la de noppeegul waaye mbind mu xoromu la waccaxal yooyu waccal nangam waccal bi naa yegg nangam yooyu laa jàngal jàngal mu xoromu mooy waccal bi naa yegg ma ne mooy projet bi waccal projet bi nangam bi naa ilmin bi naa nangam nangam waaye nag léegi maanaam xam nga tey Moussa Diop léegi ñu bind téere bi xom da ñu móol ko ñu maye ko bu ñu noppee kenn liir ko sëñ bi loolu loolu dara di moom walla yow léegi léegi fi ñu toll tey suñu jotaay bii baax na lool waaye bu ñu mënoon fexe ba diwén mu nekk ndakaaru ndakaaru ñu am fa ab ab marque centre boo xam ne lii dana fa ne xam nga daaw daaw daaw walla ci ko koor gi la daaw waajal magal gi oustaz Balla dafa doon def aw waxtaan am na am na ku fi ñëwoon daal di na xool ah yow li ngay waxtaanee ak guy yi man damaa yéemu li mu wax dafa dafa dafa rëy ci man waxtaan wi maanaam fii fii fii moomu ko wax dëgg yàlla seen waxtaan wu am solo wii dëkk bi xam ñu ko di dëkk bi aguñu ci bii niveau wax dëgg yàlla niveau bi moom ndakaaru wala waaw ndakaaru kees Louga Ndar man naa am yooyu daal ndakaaru moom mooy centre bi bu ñu fa amoon amar kees boo xam ne centre boo xam ne fa la ñuy nekk nii dafa def waxtaan yi fi toll moom man dama def fi toll wut yàlla ful ko déwén bi moom incha allah na na rek ndakaaru pour xoolal benn professeur day ñëw fii médecin la keroog man dama tiit ne ma ci yow laa xamee concept ne ma man li ma jàng tubaab lépp ci yow laa ko xamee ndar mooy ndar jëri waaw ma ne ma ne waaw kii moom kon li ma waxoon nag li li ma waxoon ba xam na ko lenn wax wax na ma lenn ma xamu ko yi ma waxul nag mbaa xam na ko xam nga kon suñu biir kon maanaam fi ñu toll fi ñu toll Xaadim Jaañ mii li ko taw pexe ji mu am daa boole daara ji ak toob ba dégg gi mu am dégg gi mu am nga xam ne day dégg boo xoolee Babacar Dramé seen nga ko ni muy xalaate daa boole daara ji ak toit bi léegi nag kon ndakaaru la lii baax ñu doon lii bu ñu ko defoon ndakaaru woote ay professeur ay jàngkat ñu ñëw bu ñu noppee nag waxtaan fi tollu jàngkat yi xaatim mi xam naa xam naa ci psychologie laa ko xamee rek du batin du dara xam naa ne amoon na problème moom da dindi génn na ko ca léegi nag ndakaaru nag kàngam ya fa ne ya fa ne ñu dem fekk leen wax leen sëñ Tuubaa ci dimension bu kawe bu amut du wóor de sëñ Modou Lo nga bu nee na ma benn professeur nee na ko boo na fekkoon ndakaaru ñuy waxtaan noonu professeurs yi da nga yaakaar ne du ñuy murit lépp la ñuy laaj sëñ bii Xaadim Jaañ bu jàngee Shahrawardi jàng Jalaaddin Arrumi jàng Ibnu Arabi alxaatimi yi ah sëñ bi nag sëñ bi nag jataay yi ngay dégg ci Tuubaa nag sëñ bi nag du dara ci yow nag fi toll nii su may wax noonu sànni sëñ jege si la ca ca ñu ngi bokk ci abdal yi ak xadra bu ñu wax al budala fi ñu toll lu xew wi laa bëgg nga xewalaat lu xew wi lu xam nga loolu xew wi na ci noonu di xew wi na noonu xew wi na murit gi ëtt murit xamul loolu moom li ma xam mooy ay lépp léegi gi nag man ma bëgg a xewalaat loolu da ko ñu di weddi ba ne ma Moustapha loolu tax nga wax li nga wax waaye gisuma sax koo weddi far di ay waay ay waay ay waay sëñ bi ay waay sëñ bi sëñ bi te sëñ bi sëñ Tuubaa ki képp jàngkat bu góor góorlu boo dul am naa fekk lii du soromam sero sëñ bi ah Ibnu Arabi soo ko jàngee futuxaat soo ko xoolee futuxaat ah sëñ bi Xaadim ji jaañ mii de waxuma dara moom waaye xam naa ne moom burutoon ak alxamda ak sëriñam ba nu ko waxati Cheikh Mouhamadou ibnu Ismo ñaar ñooñu burutoon ak ñoom kon yow da nga gëlëm de am murid ngay doon boo xam ne da ngay sëgg nii ne murid laa rek fii boo nappi nekkoo fi ndax nag sëbët bi léegi bi muri koo gisoo kenn gisoo kenn de moo tax tuñ bi liggéey bi fii moom doy na moom fii moom doy na moom fii waaw yàlla bool moom doy na moom mu di wax na ko tey doy na de fii moom doy na moom dëgg yàlla message bi jàll na nañ ko génn dem nañ dem dem Ndakaaru Ndakaaru fi nag dugg àll bi sax baax na boo fa duggee da fa ngay nekk ba màggat ba dem barsax sero waaw damaa def benn waxtaan ci albarsax waaye nan docteur lan Mouhamadou nanati ne nekkam France léegi ma nekkam Mali Modou si sax xaw ma war na ma démb rek démb ndax daa dégg mooy li nga doon fi filmé ci may waxtaan ak gone yi tawhid mu naa ma daal loolu la su fekkee yi loolu la ëpp sëñ ci war a waxee dama waxtaan ci barsax barsax fay du ak abaritan laaj benn waay laaj ma ko al barsax mooy lan al barsax ma andi ci ba al barsax mooy lan maanaam léegi barsax mooy loo xam ne wëccu bi mu lay xoole kanam gi mu lay xoole gi muy xoole wàll gii lay xoole wàll gee bi ma ko doole boo nepp mu waxoon waaw lii nag moom lii kon yow ndekete islam xam na ko xam ne woon lii kon ma ngi xam ne ko noom naa ma benn français ko turee ma ne ko ah waaye ndaw lii ma nga ca futuxaat ibnu arabi ko waxoon léegi waaye war a di wàcc moom nga xamee ne moom kon xamut boppam xam nga nag sëñ bi noonu bu dee ca Touba nag ay waxtaane cero la di albarsax lu kenn du kenn du ko def ab tem albarsax rek mooy lan luy albarsax sëñ bi sëñ sëñ bi nag sëñ Touba ëpp na fi sëñ bi xam nga sëñ bi sëñ Touba day mel ne sëñ Touba képp mag ña yëpp dagg na ah sëñ bi sëñ Touba kon nag ajanay donga de nun ñii kon nañ jëma doon ay donkaam kon nag nañu kat yitte yi liñ fi waxtaane lépp day mel ne kon ilayhi yasaadul kalimu tayyibu moo gën a wóor tum naa tum naa walhamdu saalih moo moo moo moo gën a wóor wér léegi sëñ bi jomtukaay la énergie la waaye du xaaya du du finalité ah lu am solo wird yi wird yi sëñ bi ilayhi yasaadul kalimu tayyibu waaw léegi yow bi nga subhanallah ba sonn mu yéeg nag fekk am na ay erreur ndax yow da ngaa rëy da ngaa nangam da ngaa nangam du yéeg moom. wala xam nga saa nag moom yàlla neen dana ko ba dana ba ma ko ba ma ak moom man man yàlla maa ko yóbbu. Serapha lu wax sëñ bi ba yàlla fay wax ba jëf mënut a nekk lu si gudd. sëñ Tuubaa bu doon ay wéddikat képp la am jumaay Tuubaa ji du taxaw Bamba Fall docteur docteur Bamba Fall moom chef spécial damaa waxoon lu am solo ndaa ko waxaale dane ma waaw lu tax sëñ Tuubaa bi mu tabax jumaay njëreem ji jëlul jumaay Madina ja ak moom ni mel ci salaasalaam xanaa di jël jumaay Istanbul ma ne ko waaw xam naa kon xilaafa gi li mu mujj Istanbul moo tax mu jël ko incarné loolu sëñ bi loolu xoromoon de sëñ sëñ Tuubaa ci biir soppante bi dana jar maanaam léegi bu ma fi andee ju ju jumaay Madina ju lu muy firi moom saa salaam rek la dé saa salaam moom xam si ko noppi léegi xilaafa gi fa mu yam laa bëgg a andi jumaa ja dundalaat xilaafa gi sëñ bi ci Bamba xaatam bi am solo sëñ bi de fi ñu daloon noonu ci ci Bamba Fall laa jëkk a déggee loolu maanaam kuy kuy kuy xalaat di analyser Sëñ Tuubaa jëf yi ak tam yi lu tax mu def nangam te demee wu ko nangam sëñ bi loolu sëñ bi da am solo sëñ bi la la nga doon wax Sëñ Tuubaa daaw ci saxtaan wu am solo wi maanaam léegi buñ doon commentaire mbind mi waaye problème bi mooy bagage yi waaw noonu amuñu bagage sëñ bi ñun jàngunu jàngunu jàngunu jàngunu sëñ bi moom doctorat yu bari yi sero la widdi la moom du dara wax naa ko Cheikh naa bu yàgg ay at ci ginnaaw ne ko Cheikh naa demal defi doctorat ci si seen naa ci kanam ay doctorat yu witt coppi collé du dara sëñ bi moom du dara sëñ bi andi woo lu lu yees kon daal liggéey baal sëñ moom moom waxtaan bi am na solo kon ci suñ biir la kese waaye loolu loolu gàtt na kat nañ dem Dakar
waa ci terte gi surtout ci ter sëriñ bi ñaan in